ay Aïcha mi ngi noonu ah mbégte la ñuy am ak contentement saa sune ne rek di ànd ak yéen ci seen émission seen kaar tey nag euh, dañuy rek euh, def comme ni ñu ko tàmm di ko defee saa sune ak yéen ah andiwaat beneen kaar ci plateau bi daal di koy rek euh, waxtaanee ak yéen mais laata loolu da ngeen di bàyyi rek mënu ñi nga xamante ne ñoom laa bokk plateau bi ku ci mel ni ah. Uh, di jéemoo aussi ku ci mel ni Ramatoulaye Ba mu njëkkee leen daam d'abord Ramatoulaye maa ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay <coughs> di kontaan lu bu baax a baax ci émission bi tey. Aïcha tey moom tu es belle macha allah. Ah, merci <laughs> bi ci côté mi kontaan di jëmoo nuyu naa la. Eh maa ngi lay fay Mariama euh, di rafetlu bu baax a baax encore une fois. Mm-hmm. teewaay bi di nuyu mbokki internet yi waaye di nuyu Sénégal di nuyu monde entier. ay Aïcha ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax mais comme ni ñu leen ko waxee woon ce sera tous les jours avec euh, vous bien évidemment ak sur Equivox TV lañ koy defee tey nag euh, ñu reste rek ci même thématique bi ah depuis semaine bi yëpp daanaka dañuy waxtaanee lu am solo mais tey dañuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy série yi comme ni ma leen koy waxee tous les jours dañuy sukkandiku ci benn cas particulier pour parler du général te nag euh, ñu waxtaanee li nga xamante ni moom mooy série yi ñi nga xamante ni moom mooy Jamra ak Infidèle ci loolu la ñuy sukkandikoo pour wax des séries en général wax li nga xamante ni moom mooy euh, merci série lu ñu véhiculer ak euh, réalité bi nga xamante ni moom la société sénégalaise bi di dund di jëmoo tey loolu lan nga ci tijjee. waaw loolu moom bon euh, li may wax rek mooy cinéma Sénégal dafa demoon ba gagné benn benn benn marché mooy que dem na ba tey seetaanatuñu yenn télé yi yenn séries yi ñu tubaab yi doon proposé bi ñu demee ba gañe loolu. Euh, ñu dem ba benn moment nag gisatuñu euh, production bu baax. parce que man man damay pointé foofu sama baaram li tax ma ne gisatuñu production bu baax parce que yaakaar naa tey boo demee ba li gënoon jafe nga réussir ko donc li gën a yomb war nga ko mën a téye mooy kalam tey seetlu nañ série sénégalais yi xale yi dañ leen di xëcc envers ñoom tey boo demee seen casting da nga yaakaar ne soirée moo fa xew déjà loolu c'est un problème non je te jure. da yaakaar ne soirée moo fa xew parce que xale yi li ñuy sol maaraka day taali donc ki nga xam ne moom dafa ñëw pour casting sol loolu donc kooku bu siiwee noo day toj jamono bool kook lenn dañuy jël xale boo xam ne maanaam conscience am mature ñu may ko benn code bi yóbbu ko foo xam ne eggagu fa te kooku bu boobaa du ko mën a téye loolu aussi day doon beneen yematuñ si mais dafay am seen yoo xam ne tey tey tey képp kuy way jur doo digal sa doom mu seetaan ko donc c'est un problème ñu produire parce que loolu la ñu am ñun saa bu ñu sañoon dañuy consomé local mais bu ñu demee nag ba suñu consommation locale di yem ak beneen tubaab bi non c'est un problème ay Aïcha lu am solo lool loolu ki nga xamante ne DJ Mo loolu la wax waaye bu ñu fàtte dañ naan dañu nekk vingt et unième siècle te li nga xamante ni moom mooy cinéma dafay évoluer mhm. Sénégal tey euh, bokk na day gagné ay prix dañ ko wax donc tey ji xëy na évolution cinéma moom moo toll foofu noonu léegi nag bu ñu waxee ci li nga xamante ne moom mooy série sénégalaise série locale yi nga xamante ne ñun ñu ngi koy seetaan euh, le cas de infidèle on va mhm. dire euh, jàppoon ni tey ji réalité bi la mais sénégalais dafay bëgg se voiler la face de telle sorte que ni bu nangoo euh, reconnaître li nga xamante ne ñun ñu ngi koy dund damay bàyyi Ramatoulaye rek mu tontu ci. ok Mariama en fait man côté boobu noonu euh, fan laa ci njëkkee mooy ci série boobu ngi préciser tout à l'heure muy infidèle euh, man loolu noonu li ma ci njëkk a gis mooy complex complexe bi ñu am ñun sénégalais complexe de supériorité parce que tey jii boo xoolee série infidèle ils n'ont joué wuñ ci dara si réalité sénégalaise yi peut-être je man tu vois nous les sénégalais lu ñu xam mooy autre chose loo xamante ni mooy euh, kii. comme ñoom temps ñoom ndata yàlla comme on disait yooyu noonu exactement nous avons des exemples très pertinents. Mm-hmm. des des scénaristes très pertinents. c'est le cas de Sembène Ousmane ce sont des gens qui déplorent tout ce qui est mœurs tu vois. ce sont des gens qui, euh, qui, poussent, qui la population à épouser les bonnes mœurs. Mhm. di di jàppale nit ñi di condamner loolu nga xamante ne mooy misère. Mhm. ak yeneen ak yeneen mais instant yi ñu gis ci série yi c'est ci série yi diamétralement opposé à ça da ngay gis ay ay mots yu vulgaire ay réaction yu yu mhm. yoo xamante ne c'est c'est tellement bizarre tu te la question nit ki naka la mën a defee lii mu leer ko ni peut-être benn petite sœuram wala mm-hmm. benn xale mi ngi toog ci ginnaaw di ko seetaan mm-hmm. koo xamante ne elle est immature ou il mm-hmm. est immature et est en train de regarder les les les les les scénarios kooku noonu bu ko gisee il elle va se est en train de faire ça ou elle est en train de faire ça donc cela veut dire lii mooy dëgg lii moo am lii moo baax mais kon tey jii bu ci këram. daguma la mais dem feneen. Mm-hmm. la personne va répéter les que mm-hmm. mais su ma comprendre li ngay wax. Mm-hmm. da nga bëgg a wax ni ki nga xamante ne peut moom mooy scénariste bi wala moom mooy réalisateur bi nga xamante moom moo def série boobu noonu. exactement ak yeneen série dafa inventé. dafa créé relaté li nga xamante ni moom la Sénégalais bi loolu nga bëgg a wax. Mariam man je ne condamne pas trop. pas trop je ne dis pas carrément mais pas trop ñiy jouer mm. parce que gis nga ñuy jouer dañ leen bindal jox leen lu ñuy jouer les scénaristes c'est eux qui font le le maximum du du mm, travail mm. ñoom ñooy bind di jox ñi ñi di jouer donc ñoom par exemple man tey li ma ci am mooy ñu proposé ma benn euh, rôle mm-hmm. su ma arrangé wul je dis carrément moomu lii mënuma ko jouer parce que gisuma si sama bopp ma génn ci tu vois mais am na ñoo xam ne peut-être xaalis bi wala dañ ko soxla ak yeneen ak yeneen moo leen mhm. ciy dugal. Mhm. tu vois man celui que je condamne mooy scénariste. scénariste bi ay je moom nee na moom scénariste bi lay condamné parce que relaté wu li nga xamante rek moom la société bi di dund fii ci Sénégal. Mhm. Euh, d' abord dama lay jox quelques exemple mm. lu ci mel ni Père Moussa maa ngi koy nuyu de passage. soppe lay aar bu Arcos banlieue ak ñeneen ak ñeneen. ñooñu ay ndaanaan kullu fàddil lin la kenn du leen joué ci lenn. Père Moussa moo bind la pirogue kooku mhm. source d'inspiration la mhm. xale yi nañ dem jàngi mhm. gis nga dara boo ko bëggee def da ngay dem nga jàngi ko mais nag bon Sénégal nag euh, tous les tous les voies sont pour que nit siiw euh, pour am buzz parce que yaakaar naa kuy jël temps am di ko def ci lu ñàkk fayda buñ nee la kaay ma xamle la ak monde entier da cay dem gis nga xale yi li may waxati encore une fois man siiwu xale yi man daf may daf may daf may xaw a déranger xam nga lu tax may déranger soxoruma en fait mais nga siiw ci lu positif dafa baax. Mm-hmm. mais yow imagine toi wallahi azim man infidèle mm-hmm. non seetaanatuma ko parce que xamul tax. Mm-hmm. parce que awma lu may jàngal. awma lu may jàngal. non moi je pas d'accord. ah ok am nga ci droit. Mhm. mais nag may ma ma ñëw lu tax aw moo lu mu may jàngal. Mhm. parce que tey fépp foo xam ne man war naa faa mën a xool xam-xam. Mhm. may xool ay seen yoo xam ne dañuy dem. ba waa Jamra di ci dugg. bañ koy censurer ci télé yi c'est grave. Momo série boo fi gis ñu tourné ko ci télé. Hmm. y a un message essentiel. qui est passé derrière ko loo xamante ne du n'importe qui moo ko mën a gis. ma jox la exemple que tu sois très. non mais non mais non mais non mais ma jox la exemple. non non par galanterie vas-y am na benn message essentiel boo xamante ne série boo fi gis da koy passé soit tu es conscient tu le vois soit non parce que gis nga série infidèle malgré que y a l'infidélité y a tout essayons de voir. le le kii bi nu mu tuddati non le message passé en plus les les kii bi nu mu tuddati encore les mm, les retombées tu vois nit ki après nan naka lay mujjee merci mm. ne regarde ne regarde pas seulement les faits xoolal fan lay mujjee mais est ce que xam nga leen est ce que xam nga leen non mais est ce que xam nga leen si maladie est ce que xam nga leen Ramatulaay Ramatulaay Ramatulaay est ce que xam nga ne série infidèle moo euh, moo inspiré cirque noir xam ngeen si cirque noir mooy série boobu nga xam ne dañu mujj ñoom ñëpp euh, ci loxoy yoon. infidèle moo leen inspiré. mais moom may ma ma ñëw may ma ma ñëw. gis nga fii. Mhm. gaa yaa ngi joué. Mhm. ñu ngi joué loo xam ne tey sénégalais yaa ngi koy seetaan doomu gaynde mhm. mais ñu ngi koy seetaan et que c'est originalement sénégalais. doomu gaynde comprendre nga bañuñu ko joué. Mm-hmm. mais li ñuy bañ mooy nga joué gis nga tey wallaay boo toogee ak mag ngay seetaan dara bu déggee ngeen baal ma ci wax ji. Mm-hmm. bu déggee ñu wax ci taat rek danaan j'appelle parce que ça sonne mal à l'oreille. Mm-hmm. dootul xalaatati xoolati message bi. fii mun nga joué lu positif mais du am yenn seen yi. mais bu demee bay am yenn seen yi rek non am na ñoo xam ne benn âge bi moomatuñ ko. mais moomoo ngeen baal ma xam nga am na loo xamante ne da koy nangu. tey jii si on prenait Sénégal majorité bi am téléphone ñëpp am nañ tiktoo seen seen téléphone te pourtant Jamra newul di surveiller ban contenu ak ban contenu moom mooy daw TikTok te TikTok la nit ñi di seetaanee la majeure partie yenn séquences yi ci infidèle te ji jàppoon yi même bu dee infidèle série boobu wala beneen série bu mënti doon mu ngi am lu muy joué ci société bi mais réseaux sociaux bi wala yenn application bu ci mel ni TikTok te parents yi di ko di ko bàyyi seen doom ñu am ci accès di ko seetaan librement ak yenn chaîne de télé yi nga xamante ne ñu ngi koy seetaan yooyu noonu ko mais li nga xamante ne tey sénégalais bi moom lay def te moom la ñuy ñaawlu. gis nga mon gi association la. <laughs> mbon gi mhm. association la dafa am foo jot ak foo mënul jot mhm. ndax dégg nga wax ji TikTok Sénégal moomu ko mais nag man sañ naa tey gis Mariama mhm. muy def lu defut mun naa koo xeex dama koy xeex mais TikTok du Sénégal en fait mënuñu ci dara tey képp may ma nga ñëw laisse-moi laisse-moi laisse-moi venir vas-y vas-y tey TikTok képp ku jël sa bon bon yow nga dugal fa ak yow nga am sa connexion seetaani ko loolu yow mais nag du ñu nangu mukk yow nga nekk sénégalais dëkk Sénégal am ay doom fii mhm. ngay ngay ngay ngay lancer ay messages nga xam ne dafay nuire la jeune génération mhm. ba ñu ko jouer en fait mhm. parce que man fierté la man ma seetaan série sénégalais parce que man je je pas man lu dul lu dul lu dul comédie munu munul ci man dara dama koy seetaan ree moo man je dirais plutôt gis nga àdduna bi fii foo gis lu baax am na peut-être nit mën na fa ñëw rek gis fa dara lu ñuul naan lii moom baaxul lu bon la. comprendre foo gis lu bon aussi. Mhm. am na peut-être kenn kuy jóge fee rek naan gis fa benn partie bu baax c'est l'exemple de euh, maîtresse d'un homme marié. Mhm. Euh, peut-être euh, incarné nañ fa euh, femme boo xamante ne mi ngi génn nag. Oh, jëkkëru jàmbur mhm. mais man leçon bi may tirer ci série boobu c'est plutôt man gis naa ci tuuti côté positif xam nga lu tax. man je dis plutôt que c'est une femme. qui est par euh, par euh, l'envie de se marier et fonder une famille c'est le cas de Mariam Dial mm. gis nga euh, nit ki foo bëgg a gis lu baax rek di nga fa gis lu baax c'est le cas de kii ni infidèle man lan laa fee gis lu baax mooy man retombées yi laay xool. Mhm. parce que ñooñu noonu nga gis ñuy commettre seen ñuy def seen i infidélité di dugg fii di génn fi fan la ñu mujjee ci ay maladie ay sida. li nga wax noonu am na solo bañu ma may leen ma léegi da ngeen may may ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy personnage bi nga xamante personnage laa koy duggee entre guillemets parce que mbubb la boo xamante ne la ki nga xamante ne moom mu ngi joué moom lay sol mais le problème a nekk ni tey jii bu ñuy pointer du doigt li nga xamante ne moom mooy série infidèle boobu mais dañuy pointer du doigt acteurs yi nga xamante ne wala actrices yooyu nga xamante ne ñoom ñu ngi koy joué mm-hmm. et pourtant on dit que c'est un personnage peut-être du loo xamante ne seen nature la wala loolu la ñuy en dehors de mm-hmm. Mm-hmm. mais tey jii sénégalais bi seetaan mënul def la part des choses ba nekk ba ci réseaux sociaux yi da gis dañ leen di saaga on est taxe de tous les noms et pourtant dañ ce comme si nga xëy dem sa bureau nga liggéey te tey yow mii di jàngale lool noonu dafa mm-hmm. am leneen loo bëgg ki nga xamante ne mi lay seetaan moom mu gis ko ci xam nga xam nga leen may ma ñëw mm-hmm. euh, xam nga mm-hmm. le cinéma c'est le reflet de la société on est d'accord mais nga woon nit lu baax aussi baax na li ngay wax personnage mbubb la booy sol mbubb la woon booy sol ay jamono mais léegi du mbubb ndax xam nga lu tax képp ku joué benn série ba ñu xamee la tour boobu tour boobu ngay continuer est-ce que est-ce que dégg nga. tur bi ma may ma bi boo déggee ma ne moom may may leen ma ma ñëw les xam nga lu tax ma ne tur boobu ngay continuer mhm. bëgguma tu tudd ay tur par exemple Mariama da jouer benn série séeri bi ñu ñu ñu ñu ñu euh, tuddee la ci ndate mhm. ndate boobu def effet mhm. mais ndate ngay def de la série temps même boo jouer ji leneen kon boo kon yow dafa tooku dafa tooku mbubb boo summi maanaam boo paree série pare nga mais ko def mbubb boo xam ne tey moom moo lay gunge donc mbubb boobu Sénégal la ñu ne Sénégal des fois nga seetaan série boo seetaanee doomu mm-hmm. bàyyi. Mm-hmm. da ngay seetaan bay jooy da nga bokk. Mm. parce que da dem ba yow li muy li ñuy joué. Mm-hmm. doomu bàyyi season euh, xaw ma ndax yéen a koy fàttaliku ou pas. comprendre nga da ngay seetaan ba jooy parce que da ngay bokk ci biir. comprendre nga. mais te loolu xam nga ma ñëw. te loolu lu ñu lay won nii la rek. donc bu ñu demee tamit ba beneen boor bi tamit leneen am fa donc on a le droit fii Sénégal la ñu ne lii rafet na mais bu ñu gisee loo xam ne rafetut ñu ne rafetut parce que gis nga boo fekkee ñaar ñuy xeex nga fekk kenn ki ëpp doole keneen ki ëpp du ëpp euh, néew doole boo àttewul yaa ngi sot comprendre nga tey yow jigéen nga t'as le droit mais nag je te rappelle chose que yow dangay am suba jëkkër am njaboot te tey am na loo xam ne buggoo sa doom seen yar mu bokk ci on est d'accord yow tu te permets tey sa doom am jëkkëram far te yow tu te tey yow sa doom comprendre nga di def naka su dul noonu di taxawaalu wala sa doom di génn même bu nekkee après da ngay xaar conséquences yi donc d' accord da ngay xaar après li nga koy corriger mooy da ngay xaar conséquences yi moom pour sa doom yow. Mhm. pour moom boo amee jëkkër am far. Mhm. da léegi looy waa xaar damay xaar fi muy mujj. la. parce que ki seetaan série def. loolu dañu toll si jamono joo xam ne xale yi dañu am. fit dañu xam nga ban jamono lañ ne. xam ban jamono lañ ne. Mhm. jamono joo xam ne xale yi dañuy toog seen kër papa ak seen kër yaay seen papa seen kër yaay ñu toog xale yi di def seen téléphone lu seen papa ak seen yaay xamut dañu toll jamono joo xam ne xale yi dañuy double clé seen buntu kër yi dañu toll jamono joo xam ne xale yi moom ma ñëw toll jamono joo xam ne xale yi dañuy teg dil mhm. dañu toll jamono joo xam ne wallahi azim xale bu am 17 ans yow boo amee 35 ans mën na la tënk ci xel kon xale boobu boo jamonoon teeg moom mhm. Mhm. non jàppoon ni jàppoon ni atte nga sa bopp ci li nga wax nii exactement moo tax ma ne la moo tax ma ne la moo tax ma ne la lépp lu ñuy joué nañ ci sóoraale ñooñu ku am ku xool ku am fit Mm. da nga koy ragalloo. gis nga li nga wax nii dëgg la mais xam nga loolu noonu yëpp ñan ñan lañ si sorale les immatures. Mm-hmm. ñoo xamante ne ils ne savent pas faire la part des des des choses. Mm-hmm. parce que tey jii bu fekkee par exemple prenons l'exemple de Niambé Niambé lu muy dégager fii ak lu muy dégager si biti c'est diamétralement opposé ah il est là en train de nous faire rire di def ay comédien mais est-ce que dina génn si biti di de il se comporte comme un euh, mais nag looloo garaaw xam nga parce que il est assez responsable moom image bu muy dégager fii nii Equivox comme euh, kii bu mu fi joué Roubetin c'est en tant que comédien c'est ce qu'il est en train de faire mais lu muy dégager si biti bokkul xam nga lu tax loolu garaaw may ma ñëw xam nga lu tax loolu garaaw mhm. bëgg naa la de mm. sama jigéen nga sama xarit nga mhm. waaye li ma lay bëgg bëgg bëgg mhm. bu àjjana desoon benn damay dugg ne la après yaa xam nooy def maanaam du ma la yéene àjjana yéene sama bopp sawara gis nga nit doo foo ak yow xam nga luy doo foo ak yow mooy du ma nangoo jouer lu bon. Mhm. parce tey gis nga tout aspect positif a un aspect négatif. Mhm. da seetaan benn série benn personne. Mhm. personnage selon bi muy jouer mu neex la ci yow. mais nga jëpp ci keneen. tout aspect positif a un aspect négatif on est d'accord sur donc quelqu'un boo xam ne danaan man damaa baax ba pare nangoo jouer yenn yi. donc là non loolu nax sa bopp la gis nga may ma ñëw. may ma ñëw may ma ñëw ok d'accord am nga ci droit. ba ñu ma ko de parce que jox naa la. Mm-hmm. bi may commencer. Mm-hmm. nee naa la le cas de euh, père la pirogue. Mm-hmm. comprendre nga ay soppe ak ñeneen ak ñeneen doo leen gis mukk ñu joué yenn Demba Fall papa Demba Fall. dafa am lu Moussa wax. te loolu képp kuy nit laa wax waxuma mhm. waxuma comédien wala artiste wala mhm. képp kuy nit bàyyi ci xel nee na dañ ko mos a joué loo déggul wax ji trois minutes ñu fay ko ci quarante cinq millions nee na bi ñu ma ko waxee dama leen saaga ndey mhm. est-ce que yaa ngi imaginer trois minutes quarante cinq millions bi ñu ko laajee loolu lan la ngeen baal ma ci wax ji mu ne dañ ko doon bëgg a pour noonu mu ne imagine toi tey bu ma joué woon loolu ñu fay ma 45 millions dama am njaboot. Mhm. may ma mu mhm. ma eggale. vas-y vas ne ma mu ko. Mhm. samay doom màgg. dootuñu siggi. dëgg la est-ce que comprendre nga. mais tey joué ko samay doom màgg na maa ngi suturlu. infidèle kooku ci summeeku woon. mais non coow li fay na mais affaire yi ça de. Euh, Momo li nga wax li nga wax yëpp li nga wax am na très rapidement mhm. xam naa ni débat bi mën na fii ba suba rek duñ fi jógee te liñ ci war a wax bëri mhm. mais comme xam ngeen ni njàmbee mi ngi fii te moom daf ñu rejoindre ci li nga xamante ni de mooy deuxième partie bi mhm. DJ Mo dama lay wax benn affaire rek dans la vie comme on parfois y a des situations yoo xamante ne ni euh, munoo munoo am ne te doo toj nen donc ma mën mën naa jàpp ne loolu tax ampleur bi mu am mu am ko parce que infidèle xëy na dafa am leen lu ñu bëgg mhm. donc il faut que mu am bruit bi il faut mu am désaccord bi mhm. xam naa damay bàyyi rek ki nga xamante ne moom mooy njàmbe mu ñu rejoindre très rapidement ci plateau bi tant que mu installé wu moom moom na daa bëgg série bi ci xolam ah, ci xolam la ko def njàmbe maa ngi lay nuyu ah tabaarakalla macha allah euh, euh, Mariama maa ngi lay fay. maa ngi lay ziar kontaan bu baax a baax nag ci maam seen kaa. parce que vraiment émission bi moom mooy yëngal jamono. ci doon ah, xaar ah ko. mag yaa ngi koy seetaan xale yaa ngi koy seetaan donc di jëmoo kontaan naa ci yow donc débat bi nag dama ko fekk fu neex. bu bëgg uh-huh. maam ñu delloo si waat débat bi. waxtaanee mbir parce que c'est important. am na solo parce que bi ñu waxantee waxante dëgg tamit neexul ba neexul man dama ànd ak série lu ñu joué parce que am na ñu feebar. Uh-huh. am na ñu mel ni man nekk maam des hommes faibles. am na ñu bëgg ay pàncagoo am na ñu bëgg ans. am na ñu bëgg xale yi def fant ak baa infidèle dimbali nañu tey ba tey loolu noonu ñu ngi koy gis di ci faju mm-hmm. donc tey man en tant que ñaam ñëpp xamee nañ ma man tey man dama dëgg mm-hmm. billaahi wallaahi man dama xew mm-hmm. yàlla xam na loolu film bi li muy def sama xol bi li mu koy burit baragee yàlla na seen jàmm yàgg waa Event Pro man ak yéen man ak yéen ba àdduna tukki mu di nga ni nga benn affaire nag mm, ñu xam nga mm. bëgg ñu waxtaan vraiment nag mm. di nga ak série ak film du benn mm-hmm. am na ak théâtre tey du benn ñun filmu lañ wax bu ba ne filmu nag filmu ñun moomuñu ko mm-hmm. réalité filmu ñun moomuñu ko filmu amul jullit amul chrétien amul limite amul. mais attends déedéet amul jullit amul chrétien mais amul benn religion bu na accepté bon. ma ne. amul amul benn religion. non non non amul benn religion njàmme bu nangu bon. ma ne te attends njàmme dinaa la fàttali lenn. yaa ngi toog di wax ma ne ma ne déglu ma njàmme. njàmme njàmme njàmme njàmme yaa ngi toog di wax te gis nga li ngay wax ça reste. gis nga ma lenn ñu ma ci dellu ci xam nga bëgg bëggam gis tey bés boo demee ba am doom njàmme sa doom ngeen baal ma ci wax ji sa doom sol sa doom sol sous-vêtement jigéen sa doom bu jigéen du mu laa wax dama ne sol ko di la romb di dem bu mu la metti ndax su boobaa boo ko bëggee di dina ne papa yow yaa fi waxoon lii dafa baax te am naa ñu ko bëgg ci mbedd mi bàyyi ma sol jox leen seen ñamu ba dama ne la film moom jamono lay wax de di génn ci mbedd mi. mais attends film mais film mais film mais film li di def ñeneen ñu ngi koy roy dama lay jox benn exemple. benn exemple benn exemple. Mhm. boo bëggee benn produit jar da nga koy publicité. Mhm. da nga koy wane ci télé yeeg yooyu nit ñu xool ko jënd ko sol ko. Mhm. kon jàppal ne li gars yi di joué ñu bëri ñu ngi ciy roy ñame. gis nga may ma ma ñëw may ma ma ñëw non may ma ma ñëw may ma ma ñëw non non non je suis pas d'accord avec lui je suis pas d'accord avec lui je suis pas d'accord avec lui waaw xam nga d'accord xam nga d'accord mënu fi am personnel la ndaxte fii njàmm may ma ñëw xam nga d'accord mënu fi am ndaxte fii ku nekk sa avis ngay wax mais boo waxee sa avis ba pare da nga nangul keneen ki nga xamante ne tamit moom loolu la wax non mais da nga koy nangul bien sûr am na droit bi xamul tax xamul tax Sénégal dafa nekk naa fekk weesul nangu fen du du lu mu du lu mu yow isa fi ngay waxee mooy yow li ngay dund ma dama ne la maam cinéma ak théâtre du benn léegi lan mooy lan mooy euh, différence bi xam nga maam tey ñu ñoo dem maam tey bay jouer film ñun rts fii la ñu fekk ñu seetaan théâtre bi jamonoy maram bureet fii la ñu fekk maram bureet maam war na fi maam soo na fi sër soo fi beecu di lëmbal loolu maam publié wuñ ko parce que boobu médias yi tolluwuñu nii ma ne ñun dañoo exporté film jàmbur yi novelas di ñuy tegal maam ay Maria Don Pereira ñooñu noonu nekkoon sa Espagne di ko joué ay El Diablo ñu di ko seetaan fii chaque ñu ko tegal 19 heures et demi ak 20 heures ñu ko koy consommer ba keroog ni mu jeexee. teel ñu dem ba ñu jeunesse maam commencé nag maam di créer suñu ay film bopp ak nit ñoo xamante ne amuñu benn xam-xam xamuñu diggante théâtre ak ak ak cinéma du benn taxaw fii di am lu ñuy wax. ma ne xale yi nañu joué li xew waaye leen pàncaago yi waaye leen maam su fees yi nañu ñëw si nañu joué maam société bi lu mu laaj. te dëgg fa infidèle la dëgg fa yàlla nag maam nit ñi da nga koy consommer. is est-ce xam nga xam nga leen may ma ñëw. infidèle euh, suukar la njàmme. est-ce que xam nga leen mënu koo bañ. est-ce que xam nga leen. moo fi ne. est-ce xam nga leen yenn média de production ñu ngi rey yenn artistes yi. il faut may ma may ma ma ñëw. fi may ma ma ñëw. nit ñi dañuy nekk ci arcos yi. may ma ma ñëw rek laisse-moi venir s'il te plaît dañuy nekk ci arcos yi. jàng ba am xam-xam. mais dañuy préférer fekk benn styliste wala benn mannequin wala benn présentateur wala animatrice bu rëy nañ ñëw jël ko ci seen série bàyyi ki nga xam ne moom moo ko jàng ba xam ko looloo waral guute yi yëpp ñu ciy dugg gis nga xale yi mën nañ jouer si téléfilm yi mën nañ jouer ci série yi mais à une condition ñu dem jàng ko parce que fii lu waay jàngul doo ko tari. il faut ñu en phase avec loolu xam naa ni beneen tam lay nekk ci beneen cas ndaxte lu yaatu la te ci noonu doon na loo xamante ne ni du ci tey jii ci télé bi rek lañ koy gis ah, wala ci nga xam ne ñoom ñu def ci cinéma bëri na ci milieu yi bëri na ci domaine yi xam naa loolu beneen cas spécial la ci te débat bi tey gis naa ni ah, dafa tàng jër ci noonu nekk xam naa ni duñ ko mën a gën a yaatal ndax temps bi xoj nañu dañ koy daal di yemale fii rek euh, xam naa ni gën ko prolonger si beneen cas incha allah di leen jox rendez-vous demain même heure sur Equivox TV gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp di wax ni felay produit leen def leen film lu mu leen waree ni mu leen safee na pàncaako yi kenn. ayca maa ngi leen doon jaajëfal bu baax a baax te dinañ wax ne jamono ji lu nit def na xam ne tey wéeru sa ndodd ala kulli aali gis nga muy lu baax muy lu bon loo def di nga gis añ ba donc maa ngi jaajëfal ñëpp di leen jox rendez-vous dig daje ba beneen yoon di sant bu baax baax yaay kenn koo xam ne yaay la ci man muy may mën a joo nekk ba fële nga xam ne États-Unis koo xam ne day jàpp ci combat bi maman maa ngi lay sant di gërëm Sénégalais yëpp ay ca noonu ngeen ko gisee na ah, ñoom ñaar mosuñu juboo nag ci lenn ni lañ ma samee seen àddina xam naa da koy comprendre mais l'essentiel rek euh, mooy ngeen jàpp ci li am solo te li ñu taxoon tey ñu andi bi rek ngir waxtaanee ko ci xool aussi perspective yi di leen jox dig daje demee incha allah même heure